ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ma jóg liggéeyal Serigne Touba te sàkku ngërëm ci barke Cheikh Moustapha ci barke Cheikh Moustapha Mbacke Serigne Bara ma jóg liggéeyal Serigne Touba te sàkku ngërëm ci barke Seex Mustafa Mbàkke ak Baara ci kattanug yàlla ak njool Màkka ak ko dar lay tàmbale ci mbirum si di Lamin Baara mooy turandoo xayru xalxulaayi sayyiduna salaalay la si abda Sëriñ Baara

ña fa tabam bur yàlla dem baaras di soppi atte ya moom Siidi Lamin Baara moo sañ fab tampamub bur yàlla dem baaras di soppi atte ya moom Siidi Lamin Baara jaasi dogal jëfëkkun la yàlla daas ba mu ñëw jox ko yonen ba mu jox Siidi Lamin Baara yonen ba dellu fa baat jaaseem ja daas ba mu ñëw jox say xibam ba mu jox si di lamin baara yonen ba dellu fa baat jaaseem ja daas ba mu ñëw jox say xibam ba mu jox si di lamin baara kiwum na làmb ja ndax bàkka moom waa jundulaay ña ngay jiinal sëriñ baara ku dem fa diiwaan fa piib yàlla ñépp a nga naan ji làmb dee su fi fel sampub sëriñ baara waa mulku ak malakoot ak kursiyoog jabaroot seen atte benn la ngi siidi lamin baara fadat wayaayiluhum wadat fayaayiluhum wasan wayaayiluhum xam nan sëriñ baara wasas mayaayiluhum wasan jayaayiluhum ki leen di jox ndigalay siidi lamin baara yooye malaayika seenub lim juróom ñett lañ yu bokku taawu aras na sëriñ baara yu bokku taawu aras wóor na sëriñ baara yooye malaayika baara boo bëggatee buur itam na fekk buur bëgg buur yàlla mi ma bëggal boppam sëriñ baara boo bëggatee buur itam na fekk buur bëgg buur yàlla mi moo bëggal boppam sëriñ baara buur jullit la ko def bu yaate tey ba ëllëg duniyaa xaaluhu ñeen na sëriñ baara buurub jullit la ko def bu yaate tey ba ëllëg dunyaa loo xuraa ñeel na sëriñ baara soppe boroomam la dib xejjam bu jëm abadan yal na nu bur yàlla def xejjub sëriñ baara ki di sibtu maaram waa mbàkke gépp ko xam te waa bu war maal sëriñ baara ñëw leen siyaare sibtu soxna jaar bu so murit yaa ngi nii sëriñ baara sëriñ baara jàngul ba sonn lu tondoon gàgganti gaaya gagoon ca lawxu mahfuus man yem naa sëriñ baara fa kun fa yàkkoon la dàmbee xam-xamu bi kamam booleeg sirub alxuraan naa gëm sëriñ baara fa kun fa yàkkoon la dàmbee xam-xamu bi kamam boole ak sirub alxuraan maa gëm sëriñ baara taalif na téere yu rëy salmasi taxamul kaa nga ki foore du xam bindum sëriñ baara taalif na téere yu rëy salmasi taxamul kaa nga ki foore du xam bindum sëriñ baara ca alimul xaybu la tabe sëriñ daara sëriñ ku la sa cosaan bay weddi lii ma la wax jàngal mu na wér bul yaanum sëriñ daara sëriñ ku la sa cosaan bay weddi lii ma la wax jàngal mu na wér bul yaanum sëriñ daara si rub aroot bayaan ak téere yi taxa xam ca alimul xaybu lañ sëriñ daara ca géeje xëy bu la naan ba maam di ñëw di bëngeen nekkuy lu mat dandu leen bal dey sëriñ baara ca géeje la naan ba maam di ñëw di bëngeen nekkuy lu mat leen bal dey sëriñ baara koo xam ni kii bu mu saa tàngoor ba geesu wetam lum xol mu takk jërit moo di sëriñ baara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 si saytu ak si moytu Bamba doy na sëkk te doy na sëkk si saytu ak si moytu Bamba doy na sëkk te doy na sëkk Bamba doy na sëkk te doy na sëkk si saytu ak si moytu Bamba doy na sëkk te doy na sëkk si saytu si moytu. Bamba garde sape yi garde distance yi. te doy na sëkk. si moytu. Bamba doy na sëkk. làqu waay te doy na sëkk. weeru waay ci saytu. ak si moytu. Bamba doy na sëkk. làqu waay te doy na sëkk. weeru waay ci saytu. ak si moytu.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 fa ñu sëriñ baara moo doomi soxna mi toloo mu am ma ngaram yàlla mu sawa may turandoo baara soxna mi daa gëmoon Seex Bamba fekk ligal ba daa bi jàll tawoo wóor na sëriñ baara keroog ba Seex Bamba ne tey ajjana ku ca dem du ñàkk tey moo ca dem mooy ndey baara maa doxam bu soo bëggoo na dem mu ni ko toogal ma dem ta nga wuuf see falu baara ba mbàyyi koo foofa nag di toggi reer te la dal di liggéey wóor na sëriñ baara keroog la bur yàlla naa rilwaanu na ma ubbil ajana tey ma teral waajuru sëriñ baara rirwaan di ubbi buntu ajani bee kawafal boobee ba tey tëjuwul ngir xeetu Cheikh baara jigéeni ajana waajak seentakaayi wurus di teeru soxna am toloom sëriñ baara maam soxna bu so des fii di seddale ngor diggante Seex Musaa falloog sëriñ loola waral loola waral ba meles Cheikh Moustapha wu sëriñ falloog sëriñ baara Cheikh Baara nag ba mu ba mu xamee doon xalifa la dab bi jannatoo jaaxaan fa ma mbaar ñeent fukki at la fi am ak yu tafal soga dem jooy naa borom kàddu gi way man sëriñ mbaar ñeent fukki at la fi am ak yu tofal soga dem jooy naa borom kàddu gi way man sëriñ mbaar dem na fi lim dem am na fi lim am jur fi ñu baax ñi mu jur waaj na sëriñ baara sagal na maamam sëriñ maranta mbàkke ma woon fa neegi mbàkke kajoor jaajëf sëriñ baara sagal na maamam sëriñ maranta mbàkke ma woon fa neegi mbàkke kajoor jaajëf sëriñ baara gis naa fa mbàkke kajoor xee